jaajëfee loolu nag dama toog sama xarit sama mag Assane Waalo borom Linguère di ko nuyu bu baax baax bàyyi ko mu fay ma ñu daal ñëw jukkil leen di gën a fas Assane maa ngi lay nuyu. na Mbacke fay naa la di nuyu internet u TV amaan mbégte jàkkaarloo ak ñoom pour indi leen di gën a fes ci doon nag mercredi 15 septembre 2021 suñu làmb ba mu xëyee ci xëtamu njëkk da la muy xëyee Ama Baldé brise de silence depuis Bordeaux ki nga xam ne mooy sël bu ndaw ba ca Pikine nag la muy xamle nee na dina daan Modou Lo ci à sa teg ci. avec la manière moom noonu la ko kii di Ama Baldé waxee comme ni nga ko waxee mi ngi Bordeaux euh, France depuis quelque temps maintenant. suñu làmb nag décroché benn exclusivité euh, seq ak moom entretien bu yaatu sax li ci wax moom mooy dafa war a moom li muy ambitionné moom mooy que mu daane Modou Lo avec la manière maanaam daane ko. mais ak daanin daanin bi ci war. maanaam daan nga da koy wane carrément maa la mën exactement loolu laa la wax nee également mm, xam na ne Modou Lo du du du mbër mu ndaw du mbër moo xam ne nii mbër mu yomb la moo tax moom mi ngi liggéey bu baax a baax te am na qualité yoo xam ne nii war na mën a daane Modou Lo nee na Modou Lo dina xam ne Ama Baldé mii du ñeexu ñeebe Ama Baldé wax na également ci wàllu public bi nee na moom ay supporters la am public bu bëri la am te le jour ji. ñoom dinañ ñëw ci arène bi feesal ko dell nee na supporter am yi fu mu dem rek dinañ ko topp ànd ak moom. ca ron nag première journée de la saison nag lañ jëm 10 octobre ka koy ubbi di Calme Ndour ak Eumeu Sène Junior. la Ndeye Mbacke euh, saison bi mi ngi war a ubbi le 10 octobre ñi koy tëgg nag ñoom ñooy Rent DKR moom mooy ñoom Alain. comme ni nga ko waxee Calme Ndour ak euh, Eumeu Sène Junior ñoom ñooy bëree ci jour boobu mais du ñoom rek ndax euh, Marley ak Nécourél war nañ fa daje. Euh, mobile 2 ak Bour Sine également war nañ daje ci journée boobu mu nekk kon journée boo xam ne. booy plateau voilà Aziz Ndiago. voilà boobu sama combat la maa nag 5 victoires pour 8 défaites nga xam te ne nag mooy équipe Colobane ñu ci ay mbooloo nekk équipe bu bees daaw la njëkk la sañcoon. Mhm. donc seen première saison ñu def ko ñoom nag li saison bi li ñu ci am mooy 13 combats. 13 combats yooyu am nañ ci 5 défaites am nañ ci 5 victoires. huit défaites ñu xam ne kon bilan bi xaw na euh, naxari tuuti xaw na ñagas léegi nag euh, début difficile la euh, c'est vrai parce que équipe bu bees la Konia 2 moom moo fa nekkoon seen leader Konia 2 dafa perte combat bi contre Ronaldinho le 7 juillet Euh, coach bi nag euh, muy bàcc Faye bi nu ko laajee def ne c'est vrai euh, première saison la affaire yi xawoon na métti mais bilan bi ñoom xaw na leen a am satis xaw nañ ci am satisfaction tuuti mais nag année prochaine incha allah bëgg nañ def lu gën a baax. ba un jour ñu décroché suñu lamb d'or macha allah ca noonu nag mbay gu gi lañ dem mbay gu gi di poulain wu ki nga xam ne ni mooy le géant du Baol Tapha Tine mhm. la muy xam mooy reebam la mu bëgg affronter kii li nga xam ne mooy Modou Lo roi des arènes loolu mooy reebam maanaam li nga xam ne nii bu tëddee moom lay géew géwant nee na daal li mu géwante moom mooy un jour mu défier Modou Lo mu dajeek Modou Lo ci eh, arène bi nee na nag instant yi moom ginnaaw bi mu daanee Mamballa Laye Goté moom bu ko kenn wax ndax moom dépassé na ko ñi muy xool kay moom mooy Moussa Ndoye Modou Anta Thiat wala Sokh nee na ñii la visé te ñoo la bëgg dajeeg incha allah bëtam daal ci kaw la ko teg. exactement noonu nag ba see Balla Gaye numéro 2 ginnaaw boobu ñaaxee papam boobu di Double Less ñu koy jaalee famille ñëpp famille Saxum ñëpp kaw ba suuf mm-hmm. particulièrement à Balla de à Sa Thiès ca noonu nag kii di Amadou Sall doomu mm-hmm. président bi daal dafay dem dem joxe ay jaalam. dëgg la démb la fa Amadou Sall dem Amadou Sall doom ci président de la république la loolu Ndeye Mbacke xam naa ne kii na. Mm-hmm. Ah, am na am na solo quoi nekk président doomu président ba pare di dox ay jaal yooyu am na solo ci ci ci ci réew mi dem na foofu ci Maristes kër Balla Gaye fekk ko fa jébbal ko njaalam waxtaan ak moom jaale ko papat mi nga xam ne nii moom mooy Double Less mu génnoon àdduna temps yële passé ba doon nag Mor Fadam Mor Fadam nag moom lañ koy xam ne moo nekk premier vainqueur fekk nga xam ne mooy arrêt stade Léopold Sédar Senghor mm-hmm. dëgg xam nga euh, temps yooyu lamb ay arène euh, Fass euh, ci ruq yooyu lañ ko daan defee mhm. mais après boobu ñu yóbbu ko ci stade stade bi nag euh, Léopold Sédar Senghor ñi fa njëkk a bëre moom mooy Mor Fadam ak Moustapha Guèye loolu mu ngi xewoon le 31 mars 93 te Mor Fadam daane woon fa euh, Moustapha Guèye donc nekk premier mbër boo xam ne nii moom moo daane moom moo njëkk am victoire ci foofu ci stade Léopold Sédar Senghor combat boobu nag waa section sportive bu jaraaf ñoom ñoo ko tëggoon. ñooñu ñu ngi amati ba léegi. non jaraaf de mu ngi existé xaw ma. ancien ancien gloire la ñuy gaal gi ak Adrien Senghor nag le 10 wala le 17 ñu jëm. dëgg la euh, loolu lutte simple la gaal gi ak Adrien Senghor dañuy ubbi seen saison dañ koy démarrer kii la 10 kii le 17. le 10 nag le terrain gaal gi di ubbi Jax euh, production moom moo fay njëkk tëgg le 10 octobre donc euh, Adrien Senghor une semaine plus tard Adrien Senghor également dalal première journée association de la Adrien Senghor ñoom ñoo fay tëgg donc le 17 octobre pour euh, la première journée de la saison foofu ci arène Adrien Senghor bu Grand Yoff. kon Jax bu jógee le 3. Ibamar exactement day dem day dem le 10 gaal gi. kenn du jax roi lutte simple ca noonu nag journal record lañ jëm record la muy xam ne formation professionnelle des athlètes 60 lutteurs ont démarré leur formation. dëgg la Ndeye Mbacke Cheikh Ahmadou Bamba Mboup moom mooy initié FILS FILS moom mooy la association euh, pour la formation et insertion des lutteurs du Sénégal. démb lundi bi passé nag dafa dajale woon lu mat 60 litres maanaam juróom-benn fukki litres noonu la koy waxee. voilà foofu ci stade Léopold Sédar Senghor ñu ñu démarré benn formation boo xam ne nii formation bi day dem ay un mois environ lay durer euh, juróom 60 euh, litres yooyu nag ñu ngi leen di former ci wàllum sécurité wala wàll wàllum garde rapproché. FILS nag euh, Amadou Sall mi ngi ko créé depuis 2016 te ba nga ko créé ba léegi jot na formé lu lu mat ci 110 litres. te boo bokkut ak 60 lutteurs yi nga xam ne ni ñoo commencé. ba fi dem seen seen seen formation. ca noonu nag rencontre des acteurs à Thiès Thiès nag dimanche passé la woon Gris Bordeaux nag mu ngay fësal seen ambition ñoom ñooñu ñoom nga xam ne ñooy l' association des lutteurs nationales. Euh, du Sénégal du dëgg la ah l'ANEL l'ANELS moom mooy l'association nationale des lutteurs du Sénégal. Euh, Gris Bordeaux jiite ko dimanche bi passé na dañu demoon Thiès da yegg fa acteuru làmb yi fa nekk. Mhm. ci réunion bi nag euh, waa cees wax na leen lan la ñuy seen seen jafe-jafe foofu Thiès seen jafe-jafe moom mooy amuñ mm-hmm. stade bu ñu bëree en plus euh, promoteurs yi au lieu que ñu jox leen avance euh, ay ticket la leen di jox te loolu day day day day day day gêné parfois mbër yu ndaw yi euh, waa Gris Bordeaux également wax na fa projet association bi nga xam ne nii moom la jiite nee na projet yi bëgg nañ def benn coopérative d'habitat d'habitat maanaam def benn coopérative boo xam ne ni dina permettre lutteurs yi ñu am ay kër nee na bëgg na def benn mutuelle de santé maanaam def benn mutuelle de santé boo xam ne nii mbër mu feebar mhm. boo ci demee war na la mën a faj nee na bëgg na également ñu former les lutteurs ci wàllum boulangerie lutteur boo xam mbër moo xam ne nii mhm. wàllum boulangerie euh, intéressé na la nee na bëgg nañ la ci former nee na également bëgg nañ jël juróom fukki lutteurs euh, former leen ci wàllum athlétisme xam nga lutteurs yi macha allah dañu am force mm-hmm. nee na bu leen former war nañ mën a def lancer de pois javelot wala lancer de disque moom mooy yooyu ñuy def ci wàllum euh, Jeux olympiques yeeg yooyu. nee na également bi ñu fa demee ci dimanche bi passé lu mat 200 lutteurs yu waa Thiès jënd nañ seen carte de membre adhéré ci association bi nga xam ne ni moom la. grippe maanaam lu mu bëgg daal mbër bu ne ak métier. exactement. muy noonu la di ko kontaanee bu baax Assane Wall loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb looy tàggatoo di la remercier Ndeye Mbacke di remercier internetu Leewtoo TV di leen jox dig ci yeneen a baax ah, dama koy sant bu baax a baax di ko gërëm Ousmane Diallo sama monteur bi kenn du yow damay bëgg ci yow Matou Diakhoumba ah, sama xeese ba ay dëj fa ñu ko bàyyi dama koy kontaanee bu baax Bamba bu ma papa kenn du yow mu ma maane sama chauffeur Peace and Love jaamu ci yow jox leen daj daj de ëllëg allah ci Leewtoo TV ñoom Tapha Tine attention. ñaar Sa na ñoom ñaar Sa Thiès booy ñaar jàpp na ko mot na ñoom ñaar jéggi na si jël na Tapha Tine na Tapha a ngi dóor ci suuf. attention Sa Thiès ñoom ñaar xeex ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa daan na